nigga say my nigga race. Back to entertainment, back again for the culture. The only wax ci Galsen benn numéro ak sama sama sama sama toujours sama lady waaw ah, moom ñëwaat na macha allah ak Cheikh tamit moom ñëwaat na. ak euh, Sertam moom moom xàmme ngeen ko. waaw ah, Molo Molo wa nit ñi doo doo wax gars ay kan. salaam everybody en <laughs> fait la Ndini voilà c'est euh, mélomane. Cheikh. yee kanaaroo waaw kanaaroo kanaaroo gars maa ngi ziar ñëpp di bëgg ñëpp Cheikh Sakka la waaw mélomane hip hop Galsen. yee. yee surtout. waaw ñëwaat nañ tey ci beneen plateau nuyu nañ gars yi yëpp gars yi ñu seetaan. yaa tey dañuy waxtaanee benn benn sujet boo xam ne ni bon du duñu du ñu tayal di ci waxtaan. parce que à chaque année day ñëw donc yoon la ñu ci wax dafa mel ni compét yëpp nekk ci àdduna bi chaque fois il moom des analyses yoo xam dañ ko ciy def et tout partager suñu avis comme ni mu koy faral di waxee fii dañ principe bi dama koy répété di ko répété principe bu mbedd la donc dañuy noonu la ñuy waxtaanee dox daje la. toog waxtaan ku nekk joxe sa abu ci benn mbir boo xam ne ni xew na waa tey ñu ñu ñu kii ko ñu focus ko ci ci ci Galsen Hip Hop Awards. Galsen Hip boo ko déggee dafa doon benn benn compét boo xam ne pas compét entre guillemets dañoo gis ni ay nit bu ñu nekkee di di yëngu ci benn mbir dina toll jamono boo xam ne ni ku nekk nit ñi nekk di di di di seetaan wala di consommer mooy ñooñu noonu ngeen di jox affaire ñu ñooñu ñooñu dinañ am sañ-sañ taxaw ne. diw ak diw ci lii ñuy yëngu kii moo raw kii moo raw loolu lay faral di am am na ci mbir yu bari yoo xam ne ni bon yu ci gën a siw football la ak yeneen ak yeneen même cinéma bi sax am na ko ak yeneen yeneen yoo xam ne ni dañuy naan jamono jii nii diggante période bi ba période bi ñii nii di yëngu ci mbir bi nii lii liggéey nañ ko te seen liggéey boobu noonu war na tax. ñu jox leen leen loo xam ndàmpaay boo xam ne ni bu entre guillemets benn benn affaire boo xam ne ni day wane ni ñoom lu ñu liggéey par par ak domaine boobu ñuy yëngu euh, da am nañ ci kii daal mu tuddati euh, nit ñi am nañ ci satisfaction waaw jàpp naa ci principe boobu noonu lay lay Galsen Hip Hop Awards su juddoo ba tey muy dox di dox di dox di dox ba tey fex waa ji fexe na ba jéggul ko frontière yi bañ ci boole ci yenn mbokk yoo xam ne ñu ngi cee dëkk yi si sous région bi loolu ñu doon mu doon loo une première te dañ ko saluer parce que euh, aux États-Unis sax am na jamono yoo xam ne ni gaa yi dañ naan jëli gars yi ba Afrique ba France et cetera di leen yóbbu gaa yi di leen boole ci sayfa yi donte sax duñ leen primé tout loolu c'est c'est une excellente chose lu ñuy saluer léegi euh, euh, Sirtam Galsen Hip Hop suñ ko waxee rek soo ko déggee rek yow automatiquement sa xel lan ngay xalaat waaw bon damay damay damay suñu waxee gas Galsen Hip Hop Awards damay jàpp événement la déjà buy primé ay gars yi nga xam ne ñoo gën a dóob ci ci ci ci année bi awards la comme comme comme lu ñuy wax il faut il faut il faut primer les plus méritants les meilleurs ci catégorie hip hop yu ñu am yi ko mhm. souvent hip hop dañ koy bon on a l'habitude de catégoriser le rap mhm. souvent meilleur artiste meilleur lyriciste xam nga meilleure vidéo dañuy dem sax bay bay bay bay bay di ko def ay catégorie góor ak jigéen ñi gën a méritant ci góor yi jigéen yi donc man su ma déggee Galsen Hip Hop Awards rek bon sama xel ci loolu lay dem et toujours à à à la crème de la crème quoi. ci ci ci ci ci ci ci nominé yi ci nomination yi voilà. ok hmm. euh, mhm. euh, yow. saa yi nee na il s'attend à ce ñu présenté ko ak crème mooy gars yoo xam ne ni sont les plus méritants gars yoo xam ne dañ ne ci diir gi nii euh, ci période ba période bi yenn def loo xam ne ni euh, seen yeneen moroom yi defuñu ko wala tamit yéen lu ngeen def moo gën a fi moo féetee kaw loo xam ne ni seen moroom def nañ léegi loolu noonu ñu defal la ko récompenser la jox la dara wala ñu tudd la sa ci lool ne la yow bokk ci ñoo xam ne ni mun nañu wax ne ñoom ñoo gën a liggéey ci période bi. loolu lan hmm. lay def ci artiste. waaw pour la war a waaw pour man euh, loolu euh, war na def lu bëri ci artiste quoi ndax ku nekk soxla nga boo liggéeyee benn liggéey ba pare xam nga ñu la ñun la kat li nga def nii euh, ñu bëri doon nañ liggéey ci comme comme yow mais yaa jël lii yow yaa yaa doon jox la meilleur ku nekk soxla nga ko pour man ci domaine boo mënti doon bu lu ci hip hop bi sax ku nekk soxla nga ko quoi récompense hmm. waaw aussi Euh, pour man euh, rappeurs yi euh, dañu war honnête quoi par rapport su may wax fu ci côté boobu noonu quoi ci Galsen Deco Awards ndax da ngay koo xam ni day ci dañ ko dañ ko nominé buñ ko nominé bu fekkee moom moo ko jël ko gars yi sama kii nii da ngeen dem bi quoi. loolu nag bokkul ci honnêteté quoi man su am na ñoo xam ne bu ñuy dañ leen ñu ni bokkuñu. mais man nanguma nga bokk ba pare après nga nga nga nga gagné woo après nga commencé di critiquer affaire bi. te yow yaa bokkoon quoi affaire yi noonu quoi. waaw mais tamit gàll si aussi mën nañu bëri loo xam ne mën nga ko cee wax xam naa yaa waxtaan bu gën a yaatu mooy loolu. incha allah incha allah léegi léegi nii nii euh, yow yow pour yow lu mel noonu loo xam ne ni euh, benn yoon la am ci at mi te dañoo jàpp ne ñu gën a ñu gën a aay ñoom la ñuy primé loolu noonu boo koy def. pour yow naka la war a demee yow na nga war a fexe ba eh, boo defee dara ñu ne non waaw góor lii de moom jaar na avant tout dañuy rafetlu l'initiative de Waïdi. ok c'est une fête. bu dul mm. dara rek c'est une. donc pour revenir ci sa question da war a suivre game bi pour def genre événement yooyu il faut nga suivre game bi. pas besoin yow yaa yaa yaa yaa moom sa événement. Mhm. léegi pas besoin yow artistes yi di ñëw vers yow. parce que artiste bi su génnee su génnee projet produit la te moomatu ko. donc yow chaque époque chaque temps bu projet génn yow war nga xam kañ la nga noté ko ci sa base de données pas besoin ngay publier ne. comme artiste envoyé ah, genre yu demee noonu mën nga aviser artiste bi ah, loolu cër la nga aviser ko ne ko sélectionné na lii nii nii hmm. loolu entre humain cër la bi nga xam ni artiste ko moom mais yow yaa war a def effort hmm. te pour def effort bi il faut nga nekk ci même yow en personne soo si mënul nekk nga ut équipe bi nga xam ni moo ciy nekk yow soo demee régler say business léegi équipe bi nga xam ni Galsen Hip moom moom euh, état actuel ñoom ñoo nekk si si si si promotion Galsen Hip Hop warul xaar ba année ba année rek muy ñëwaat que équipe bi ñu formuler waat ko équipe bi dafa war a permanent que à chaque fois ñoom ñu siy nekk di ci nekk comme melomaan yi ni ñuy jénnee projet publier partager et tout yow nga ut sa base de bi nga xam ne yow da nga koy actualiser à chaque fois voilà ok euh, tam buñ buñ déglu ni Euh, dafay mel ni comme comme un euh, journaliste bu nekk à l'affût de l' information ko xam ne ni yow da nga nekk di topp information quoi pour mun a dajale yooyu noonu euh, mun cee def benn étude analyser ko pour mën a def ay classement par rapport ak lu xew léegi loolu noonu loolu laaj na moyen wala selon yow ko quoi la moo tax gars yi dañu parvenir à chaque fois gars dañuy noter loolu que gars yi moom ñii bokkuñu la moo tax waa ji di laaj comme lu ko waxee publier naan diw yónnee leen ma et cetera et cetera loolu ñàkk moyen la ci waay ji walla sàggan la wala tamit je sais pas wala bon peut-être xamul mënul maitriser la mais waroon na mën a am yow boo ko doon proposer solution pour pallier à ça mhm. pour saafara loolu noonu lan nga koy lan nga koy wax plus de sérieux déjà parce que lu mel ni Galsen il faut que déjà c' est pas bon dëgg la comme gars yi ñuy wax c' est pas évident mënoon na ko ba ñu def mënoon na toog fi muy kii mais moom moo décidé ni moom day def benn événement boo xam ne day primer les meilleurs. ok donc il faut plus de sérieux xam nga il faut plus de rigueur ci liggéey bi muy def quoi. parce que man man man man saa yu may seetaan d'habitude su may su may yàgg naa saluer des fois dama naan au début soo amee yenn critique dama naan ah gars yi saa yi mu ngi quoi donc on on peut comprendre mun nañ ko jéggal yenn mhm. mais au fil des années quand ça se répète loolu ñàkk sérieux daf ci am quoi mhm. comme lu ni ni wax man je peux pas comprendre xam nga loolu du moyen je peux pas comprendre nga xëy bind ne les artistes signalez-vous Galsen Hip Hop jot mu ngi ci seen page loolu lañ bind. Mm-hmm. Uh-huh. en fait man du ma génnee sama produit ba pare nga ne ma signale toi mel nii. Mm-hmm. manque de respect manque ça c' est un manque de respect. jarul force mm-hmm. man man loolu soo ma ko defee sama œuvre du fa ñëw quand même. signalez-vous comme si loolu mooy man suivre ma parce que tamit tu dois primer les les les plus méritants. nga ne signalez-vous quand tu dis signalez loolu mooy tout le monde peut se présenter ñëpp mun nañu indi. te gaa seen hip hop artiste man chaque fois dama koy wax yow soo bokkee ci nominé yi rek loolu dafa war a nekk lu extraordinaire. Mhm. donc warul nekk benn fourre-tout ba nga xam ne da ngay jël lu nekk rek nga dugal ko ci déjà de un. donc amoo pour toog fii ne gars yi si ñaax xam nga loolu du moyen. Mhm. loolu kuy suivre game bi tey jii bëri na ñoo xam ne suñuy suivre game bi soo leen nee ñan ñoo génnee dinañ la ko wax. Mhm. donc quand tu dis yow tu yaa ngi suivre game bi dijee nga. non pardon animateur nga yaa ngi animé hip hop affaire yooyu noonu. Mhm. donc yow tu es bien placé pour xam li génn. donc quand tu viens sur internet tu dis signalez vous rek loolu da ngay manqué respect ñenn ñi. ñu dem ci état boobu ñu jógee ci. gars yi signalé woon nañ jël nga titre yi bind. partagé mais gars yi tur yaa ngi nii. Mhm. mais s'il y a des erreurs sur les noms rectifiez moi. Mhm. loolu ñàkk respect la saa yi. <laughs> ña loolu loolu man mënu ko nangu quoi loolu ñàkk respect la. est-ce que yaay loolu mooy c'est vous qui gagnez à à participer à ça mais moi je m'en fiche tu participes c'est bon tu participes c'est ton problème. façon façon waxin. donc tey yow sax yaa yaa yaa yaa jël initiative. voilà man à chaque fois bu bindee loolu la dernière fois daf ko bind ne s'il y a des erreurs rectifiez mhm. bi seen album bi ba pare def erreur ci tour bi def erreur ci turu album ba pare ne rectifier moi ñan nga bëgg ñu rectifier la ñoom te yow yaa ne yow yaay def gaal seen hypocrisie ah. ah. xam nga bu ñu bu ñu jógee ci loolu mënoo leen ne rectifier moi alors que yow heure boobu noonu bu fekkee ni équipe nga yor kon équipe bi lu leen tere dem Facebook tapé Born Black ñu gis. Mhm. pochette album bi rek ñu ñu ñu gis kii bi cover bi. ñu mhm. rectifier tour bi. et puis gis naa ay si ay commentaires gars yu bëri di leen rectifier quoi. Mm-hmm. naan leen lii du nii lañ koy bindee lii du nii lañ koy bindee. Mm-hmm. mais tu es même pas capable d' écrire le nom des artistes. Mm-hmm. ba pare nga ne yow da ngay primer les meilleurs quoi. yow tu n'es pas meilleur dans ce domaine. non attends parce que parce que parce que yow quand tu dis que yow tu vas primer la crème de la crème donc yow il faut que yow tam nga nekk au-dessus. yow il faut nga am yenn yoo xam ne yow da nga ko war a dépasser. donc mënuma da ngay gis catégorie bu ñëwoon daaw. Mhm. daaw catégorie artiste contemporain. Mhm. kenn mënu la expliquer lan mooy artiste contemporain. man dama jàppoon ne dañ ko dugal pour neexal mbalax maan yi. Mhm. dugal ay bëri na ñu fa dugal ay mbalax maan leen. ren amatul loolu day wane ni tâtonnement la rek. soit da nga am ki nga bëggoon dugal xamoo nooy def nga ne xaaral ma dugal. bon ren amatul nga ne bàyyi ma génnee ko artiste contemporain kenn mën na ko. est que tamit du est ce que du tamit le fait que critères yooyu noonu. yi hmm. définir artiste contemporain boobu. lu hmm. war existence su boobu noonu. Hmm. critères yi ñoo fa newul moo tax ñu dind ko. mais lan mooy contemporain lan mooy artiste contemporain quoi. waaw moom la critères yi ñoo setoon. ñoom par exemple ah. mën nañ définir seen i critères bopp. Ah, mais du noonu hip hop la. hip hop la tu mhm. peux pas tu peux pas ñëw nga ne non non je vais définir mes propres critères alors mhm. que hip hop la ñuy wax mhm. genre il faut mu am loo xam ne tey moom ay différencier ak Wally Seck il faut mu am loo xam ne tey day tax lii da koy bloquer critère yoo xam ne day tax keneen ku dul hip hop du dugg mais des fois nga liir critères yi mu teg nga liir nomination yi nga ne ah kon diw su duggee lan moo tere diw dugg est-ce que hip hop on prime l'artiste la personne en tant que telle wala mhm. loolu tamit le travail quoi wala loolu parce que liggéey liggéey bi la ñuy primer quoi liggéey bi la ñuy primer wala nit ñi mhm. parce que des fois nga dugal nit boo xam ne boole ko ci catégorie boo xam ne boo xoolee da nga xam ne fii amu fi place mhm. loolu bari na bon xam naa après dañ dañ fay dugg mais man dama jàpp ni en général ñàkk sérieux daf ci bëri ko waaw ñàkk sérieux ok léegi kii euh, Cheikh ñàkk sérieux bu muy wax bii nii nga yaakaar du xaw a la tuuti crédibilité wu euh, nomination yi. Mhm. ak le fait que ñuy ñu naan diw moo lii diw moo lii diw lii est-ce que loolu crédibilité boobu noonu ñàkk série ba du ko kii du ko attaché. oui man je pense que euh, day day day day day indi euh, ñàkk crédibilité mhm. man ni ma ko yàq gisee si année yëpp quoi man musuma gisee Galsen Tube bu crédible quoi maanaam yëpp mu impact nga ne non lii nice au fil des des années nag moo ngi moo ngi moo ngi changé quoi par nànk-nànk. quoi non changement bu bu mag a mag. bu mag a mag at yu mu a def. waaw mais am na yenn erreur yoo xam ne waaw mu ngi ko baal bi ñuy débuté comme sànq ni ko Sutra waxee mais am na fi ñu toll ci année ci ay éditions yu ñu toll nii am na yoo xam ne mënatuñu leen ko baal. ci yenn erreur yoo xam ne dañ koy def yoo xam ni c'est très xam nga. c'est c'est c'est c'est kenn kenn xamul. jaar jaar gi la quoi genre non artiste moo nangu mu dugal ko ci catégorie. waaw comme comme genre après noonu ko moom moo d'accord mu dugal ko. waaw waaw lii du moo ne moom mixé ko ci catégorie. loolu loolu day day day waar ko gars yi pour man su fekkee dañuy yor benn équipe boo xam ne ñooy liggéey durant ane bi yëpp. ci euh, ci projet yi génn. Ah. wala artistes yi wala affaire noonu quoi. war nañoo xoolaat bu baax a baax ñu lan mooy nekk seen liggéey. c'est parce que à chaque fois dañuy gis ni waaye di. bu affaire yi commencé jige si day day commencé di di jige yenn animateurs yi ak yenn gars yi nga xam ni am nañ benn autorité ci game bi di leen laaj man projet moo génn wala affaire yi noonu ko léegi nag foofu man de respect day day day dafa dafay dafay fay xam nga mooy ñàkk respecté lu muy lu muy def maanaam boo respecté li nga def nga teg équipe teg sa structure nga ne da ngeen di job ci par rapport ci benn affaire da nga war a respecté maanaam artistes yi wala ñi nga xam da nga leen nominé. man loolu laa gis quoi. mais manque de respect boobu dama koy gis à chaque fois ci édition yëpp yëpp dama koy gis te am na yoo xam ne mën na ñàkk quoi affaire yi mu ngi mu ngi bëgg a yàgg comme ça ni ko ni ko ni ko nuyu waxee quoi qu'on lépp lu ñu mënti wax benn affaire bu rafet la bu nice la quoi ah. sax parce que heursi yàgg naa am yàgg naa am ci hip hop Galsen mais est ce que heursi yàgg yi moo moo moo bokk boo xoolee tey jii bu fekkee cérémonie bi dafay xew yëpp ci spectacle dafay mm-hmm. xew ci scène beeg affaire noonu quoi soo na genre seen yu mel noonu quoi waaw soxla na yu mel noonu quoi direct bi waaw direct bi quoi nga xam ne benn jour benn jour boo xam ni direct lay doon ci ci kii bi xam nga Sénégal yëpp di saan lii ñu xam ne lii hip hop la xam nga li muy am bëriwul lu nice la mais am na yu bëri yoo xam ni xam nga dañ ko ci war a xoolaat bu baax a baax a baax waaw peut-être xam naa après nañ ñëwaat ci euh, yeneen yi si des yëpp léegi léegi nii nii yow gisoo ni par exemple euh, kii yooyu noonu mooy rëcc rëcc yooyu noonu di am ci ci ci ci euh, organisation yi comme aussi rëcc rëcc rëcc yooyu noonu est-ce que du artistes yi tamit ñoom ñoo war a ne stop quoi comme day am ay rëcc rëcc ki demee noonu ñun tamit nañu am nu ñuy waxee ak waa ji wala tamit ñu koy mu entre guillemets xelal ko par rapport nu mu war a doxalee si donte moom sax moom moo organisé aussi parce que tamit xel doyul moom ginnaaw booba léegi te affaire yaa ngi bugg a yàgg. les mêmes erreurs se répètent moom mooy loolu est-ce que artistes yi tamit ñoom waruñoo entre guillemets participer ci naka la affaire yi war a doxee bon dañuy faral on peut pas être juge kii daal. voilà mais mais est-ce que laajul artiste tamit joxe seen xalaat par rapport à l'organisation. hypocrisie bu nekk ci rap Galsen fii la ne du artiste bi tant que ngi. gis ni am mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. eh, na si compte moom yoon nekku si dañ waxante dëgg rek te yàlla tax artistes yi du manqué de respect mais y li de l'hypocrisie donc ils ne sont pas mieux placés pour wax waaye di quoi que ce soit blague à part wala du genre soyons sérieux quand même waaye di mi ngi tenir compte les critiques franchement parce que peut-être bii ni moo persister peut-être après dina ko dina dina ko revoir ndax su su joxee nominé ñu ni koy euh, su nominé je prends l'exemple de Papa Sow bañ ko joxee meilleur meilleur meilleur lyriciste meilleur lyriciste. Mhm. année boobu ah c'était en 2009 je si je me trompe pas ñi dañu ni ko si si base si yan critère critère nga ko joxe. Mhm. si en tant que en tant que Papa Sow ou bien en tant que projet parce que projet bi nañu nominé. Mhm. parce que loolu insulte la. xam nga Papa Sow demandé wu ko mais mënoo jox Papa Sow meilleur lyriciste te projet jëlul jëlul dara. kon donc yan critère nga base wu pour jox euh, l'artiste mhm. sa prime. année prochaine soo xoolee képp ku jël meilleur lyriciste sa projet jël na dara. soit mi doon si EP wala album. mais c'est pas forcé non non si maa ñëw foofu maa ñëw foofu si c'est forcé c'est forcé tam. Euh, voilà léegi ñu léegi ren jii nii pour ma ne la Eveu mi ngi bàyyi xel ci critique yi ren soo xoolee chaque chaque nomination wax na la critères yi ndax bu njëkk ba suñ ko nee communiquer critères yi danaan nii ñoom artistes yi jot neen ko ñoom xam neen ko mais ñun grand public bi bu toog suñu kër ñun xamuñu si yan critères nga basé wu pour jox say nominé euh, euh, prime bi. mais ren dafa def soo xoolee meilleure vidéo dina la wax critères yi pour tax nga war ko jël nga jël euh, pour donner l'exemple rek. donc man ku am staff ku am staffam. Hmm. ne moom structure la. Hmm. waroo besoin avis wu artistes yi nga xam ne ñoom dañuy compétir en hmm. bu bu bu leen fi indi affaire artiste na ci dugg si yoboo. aussi assise lay wax. non non non genre genre xam nga xam xam nga nit ki daa tam nit ki daa bind projet am. Mhm. nee na am na équipe. Mhm. d'après Seydi nee na am na équipe yu koy topp. Mhm. waaye war na xoolaat équipe am parce que dafa am faute bu banal bi nga xam ne ça saute à l'œil mais le projet de Paco Benn Boy. musul génn ñu boole ko si présélectionné. le projet de Paco benn boy voilà. waaw waa Jéggi raay. yaa ko ne mu signalé wu mu signalé wu. waaw mu si mais loolu faute yooyu noonu man mën naa comprendre faute d'orthographe yooyu noonu yi nga souligné. mais faute projet bi nga xam ne génnul. rapport rap voilà nga def ko ci loolu mënu ma ko comprendre. waaw moo tax na mën na la artistes yi par exemple artistes war nañ ko mën a ne ko hee diw. projet balaa nga ko boole ci benn compét. wala ci benn catégorie et cetera. nga fekk projet bi génn wala moom bu mu génnee projet bi. yaa ngi woo ko ne ko hee. projet bi bokkul. ankay dindi na ko si présélection yi. présélection yi quoi. mooy bu muy waxee signaler vous bu dee dafa am reti lu ñu war a rectifier ñu rectifier ko yooyu noonu. mais mais mais moom laa la moom info bu mu fan la jëlee info. waaw am na waaye di mooy toog di sélectionner am nee na am na équipe. boobu équipe boobu war nañ ko xoolaat bu baax mais équipe bi nañu war a xoolaat. équipe bi du équipe doo ko mi jury yëpp doo xaar ba dernier moment. suñu ñëwee doo xaar ba dernier moment nga nga jël tant de projet yow nga ni da koy dañ dañ koy ñun li jëntewuñu équipe Macky Sall Macky Sall la ñuy wax waaw mais tamit ñun équipe bu équipe ñun moom mooy icône moom moo taxaw di wax ne man mhm. maa moom Galsen Hip Hop mhm. du ñu mhm. maanaam foofu bu équipe bi moo ciy wax moo ciy def conférence de presse waadi la bu équipe bi mën a def rek waadi lañ koy wax waaw loolu d'accord naa ci d'accord naa ci même tamit nangul ni que dina tenir compte si ay critiques. parce que à chaque mi ngi évoluer. bu dugal projet bu kenn bu bokkul bu bu nit yi amul sax dugal ko. mais nit ay juum nit ay juum. Ah, ok nit mooy juum. affaire mais gars seen du nit système la. Hmm. il faut il comprendre loolu moo tax duñ ko pardonné yenn affaire hmm. moo tax a benn affaire moom day wootoo benn affaire. day mhm. kii serious business voilà. xam nga quand tu t'appelles comme ça il faut pas badiner avec les choses. Mm. da nga war a da nga war a straight quoi. da nga mm-hmm. war a strict. voilà da nga war a kii lu mu turee da nga war a. pragmatique da nga war a. Euh, da nga a sérieux ci lu ngay def quoi. Mm-hmm. bul bul mm. ba yow bul am benn xayma donte nit parfait wul. Mm-hmm. mais soo defee lu taa loo ne dëgër nii gars yi ne ah lii dëgër na et te année yi mu def yëpp waroon na loolu am na yeneen erreur yoo xam ne si année yi édition yi mu jàll yëpp. am na loo xam ne dañ ko doon critiqué si année bii nii. xam nga wala année bi ci topp waroon na ko waroon na ko waroon na ko réparer quoi. ok cest bu fekkee nag dafa dafa bëri lu muy am chaque jour même heure yi mooy am nag day mel ne nag loolu nag euh, tayeef lay doon quoi. ok waaw manque de respect dëgg lay doon. ci ñi nga xam ni ñoom ngay ñoom ngay nominé wala ñi nga xam ni ñoom nga boole sa business quoi. ok ok léegi tam. tam léegi léegi euh, nit ñi dafa dafa dafa ubbi benn buntu quoi. Mhm. mooy est-ce que règle la. Mhm. nga doon meilleur lyriciste. Mhm. sa projet gagné dara. maanaam nga gagné meilleur lyriciste kese kese hmm. bien sûr waaw maanaam c' est pas forcé laa bëgg wax quoi pour pour répondre à ta question c' est pas forcé nga nekk meilleur lyriciste ba pare nga jël projet war a gagné daal nga jël meilleur projet de de de de meilleur album c' pas forcé nga nekk meilleur man ça n'a rien à mm-hmm. parce que nit ki mën na nekk un bon lyriciste mm-hmm. et puis album bi ñëw euh, bon un bon mm-hmm. lyriciste album bi on sent de bon mais bu dee rap rek am na ñoo xam ne des fois ñoo la dàq rap être un bon être un meilleur lyriciste c'est pas forcément être un meilleur rappeur parce que parce que album bu nice dafa bëri ay paramètres dafa bëri voilà dafa bëri ay paramètres yoo xam ne ay critères yu ñu war a jël pour ne ah meilleur album donc tu peux faire des lyrics dope et tu peux ne pas être le meilleur mm-hmm. mun nga bañ a jël meilleur album est-ce que ay comprendre mm-hmm. man foog naa ni nit fi muy waxee foofu rek la parce que lyriciste ça n'a rien ak vidéo Uh-huh. lyrics ça n'a rien à voir ak meilleur artiste de uh-huh. parce que mun nga nekk ça n'a rien à voir ak it. it voilà voilà donc gis nañ fi King Ba doon na it te lyricalement je l'ai compris mu ne munoo nekk meilleur artiste de l'année alors que sa projet. gañewul dara gañewul dara loolu loolu moom. mun naa dama ne je l'ai compris waxuma forcé la de maanaam tey jii bu ñu nee yow yaa nekk meilleur artiste de l'année. c' parce que si yeneen critère yi au moins sax gis nañ la fa nga jël dara mais ça n'a rien à voir ak meilleur lyriciste on peut être bon lyriciste. waaw on peut être. sa projet du gagné dara waaw te sa projet du gagné dara. non je tey damay jël benn affaire Maxi Crazy. tu peux mën nga ko indi nga ne ah kii de c'est un bon nga teg album nga teg beneen album. ay yeneen gars waaw nga mm-hmm. comparé ko ay yeneen gars nga ne ah mais bu dee rap. dans mm-hmm. l'ensemble. Mm-hmm. du ma ko jox meilleur rappeur. mun naa ko jox keneen mun naa ko jox keneen. xam nga mais quand tu on dit meilleur artiste. de l'année artiste de l'année. c'est parce que da ci yeneen critères yi am na ay ay yi nga fa dajale maanaam gis nañ ni peut-être tu as wala tu yi tu as événement wala peut-être sax man loolu laa mën a nangu quoi. dama ne conception loolu laa mën a. conception man man tamit danga may nangul ni ah. quand tu dis que il est réaliste si si si c'est pas pas l'artiste au mm-hmm. mooy projet bi projet bi dañuy suñuy basé wu basé wuñu si si si si mais projet bu mu génne mu mu tegu. le contenu. le fond. Mm-hmm. la forme la forme non non dama la jël exemple projet bi pour mu jël dara. Mhm. fond da ciy war a am. Mhm. forme am. Mhm. ba pare communication mu am. et consort pour projet bi mun a. jël dara mais aide lyrique c'est une partie sax du fond. fond une partie waxuma dama fond de c'est une partie du fond. donc nag aide lyrique. aide c'est une partie du fond woo foofu ñëwoo sax si forme <laughs> yaa ngi parce que fond. dafa am lyrics ak leneen ak leneen. mais là tu es dans une partie du du du fond quoi. Ah, léegi kooku nag mënul jël loolu nga ne léegi il faut mu bokk ci yeneen catégorie quoi. foofu laay wax <laughs> jël déedéet man. d' accord waaw nangu naa la man man d' accord man d' accord ma nga ah. man a d' lu ma bëgg a tegal laa nanguwul. Uh-huh. parce que yow fond bi. Ah, nag doo ne d' ci lu nga wax. pare moom lu ma la doo ci d' loolu. d' accord d' accord Ah. ah d'accord c'est-à-dire da nga ne nangu la dara ma jox lyrics lyriciste rek du doy quoi. ci ah. ci benn ci benn. Eh, benn projet benn benn projet wala benn MC quoi. Ah. c'est-à-dire mooy que ni euh, pour ñu wax ni kii c'est un bon artiste. il faut il faut que mu bëri ay paramètres yoo xam ne nañ ko ci. kii quoi mhm. c'est-à-dire mën naa am koo xam dafa nekk lyriciste mën a bind lool te ci kaw bit day wàcc tempo tu ah, waaw wala amul technique wala affaire noonu nga bind lu nice gars yi dégg ko mais techniquement fois koo xam ne ah. simple kii mélomane la quoi pour mhm. li puriste ngay koo xam ne ni affaire yi lyrics yi ñoo ko ñor. Mm-hmm. kooku ngay approché quoi. parce que lu mm-hmm. nga bind moo ko yéen. Mm-hmm. mais nu ko formulé ba tegu ci biit bi. boo ko waxee neneen. loolu c'est artistique ah, c'est artistique quoi waaw kii nii. waaw ah. def nii genre alors ah, man tamit contre ma leen. contre ma leen non nga dañuy bañ suñ suñu mbokk fenn féministe naan non non ngeen jàpp. da ngeen di jëfandikoo jëfandikoo non non contre ma leen en fait man man parce que su juger eh, donc, donc tu juges le projet. Ah, projet on est d'accord voilà man côté boobu laay waxee au fait. Mm-hmm. c'est le projet waaw côté boobu laay waxee. Mm-hmm. on est d'accord léegi tam. Mm-hmm. catégorie yi nii. yow par rapport à l'ensemble des catégories. est-ce que obligation la. ñu ne telle catégorie dafa war a am donte sax ñu remplir critères newuñu fa. est loolu obligation bi noonu noonu catégorie moom fa mu bokk. Mm-hmm. est-ce que jarul des fois ñu naan noonu comme catégorie bi nii lii la laaj. te mm-hmm. amagul ñu ko rek ñu ko kii. Mm-hmm. dañu leen tëbal catégorie boobu noonu quoi. comme la est-ce que loolu loolu kii la daal war nañ chaque fois di di kii catégorie bi. Ah, man man je pense que catégorie yi ñuy forcer nii di ko indi. moo tax des fois muy bëri affaire yoo xam ne amul amul amul fa place quoi amul amul amul sens. des fois dañuy bëgg a ay affaire sànq maa ngi koy wax daaw artiste contemporain xam nga ren. gis naa benn. gis naa féministe yi bu attaqué waaye di ne nekko da nga ne gaa seen hip hop awards bi yow bii nii jigéen ñi ko ko tuddee parce que loolu mooy thème bi quoi waaw mais alors que amul catégorie meilleur album féminin affaire yooyu bon waa di il s'est défendu foofu moom dama d'accord mu ne ko amul quoi comme li ngay wax ni pour te rejoindre amul maanaam bi mu ko bi mu koy tontu Facebook gis naa commentaire yi ñoom ñaari mu ne ko mais seen catégorie yooyu amul amul boo booy ne meilleur artiste féminin wala mm-hmm. meilleur album amul mm-hmm. maanaam kon mënuñ ko forcer ñu donc loolu noonu bon ça va de pour yeneen catégorie yëpp tamit bu dee des fois gis nga ni fii ça ça risque d'être benn affaire boo xam ne parce que c'est pas c'est du album yi yëpp mooy am meilleur lyriciste des fois mu am ay album yiy génn déjà album yiy génn mois bii nii c'est mun nañ ne c'est de bons albums. Mhm. mais c'est pas de de grands lyricistes. Mhm. donc est-ce que boo waroon def meilleur lyriciste da nga leen di dugal foofu par force pour rek la catégorie. Mhm. donc loolu tamit lu ñu lu ñu lu ñu war a xoolaat la quoi c'est pas forcé. ñu am chaque fois meilleur meilleure catégorie meilleur bu bu dee amul mais nañ ko jël ñu wala ñu ne ah diw de album moo gën a doon. dañ ko jël ñu ne si yow sa album moo gën a dox yow lañ jox meilleur lyriciste. Mhm. est ce que yaa bu ñu forcer tamit esprit de compétition bi à chaque fois. Mhm. parce que des fois mënu fa nekk. Mhm. xam nga mënoo indi mënoo indi reyal nga indi tey. ñaari <laughs> tali quand même des fois des mun na bañ a nekk. des mun na bañ a nekk bu ñu ko forcer quoi. xam nga des fois mun na bañ a am. moo tax des fois da ngay si yenn catégorie yow da lay jaaxal sax. kii ak kii nii ñu teg seen album. après nag on parle de critères. Mhm. beneen catégorie bi ñuy wax des fois on parle de meilleur album. album des fois nga gis ñu boole loo xam ne man des fois am na ñoo xam ne waruñ sax bokk ci gaa seen hip hop heures mm. ay projets yoo xam ne dama jàpp ni voilà c'est pas yoo xam ne mm-hmm. lii c'est hip hop awards voilà ñu ñu ko ñu xam ne ah, lii c'est hip hop kon nañ indi hip hop heures yi lii c'est wala ñu tuddee ko gaa seen music awards ñu indi ñëpp ñu dugal ñëpp mm-hmm. indi Pape Diouf waaye tuddee ko noonu quoi mais parce que boo dugalee tey keneen dinaa la ne lan moo tere kii bokk bu fekkee ni dugal nga tey album bi nga xam ne lépp woy la waaw gis nañu album boo xam ne lépp woy la mm-hmm. xam nga du la nga ne kon bii bu duggee mm-hmm. lan moo tere Souleymane Faye dugg Ah, hmm. da ngay xam ne kon il hmm. la personne parce que parce que la personne il fréquente le hmm. loolu moom chaque fois dafa am lu muy mettre en man maa xam loolu moom chaque fois buy <laughs> loolu la xamu man maay dugal kaay leen ma jàngal leen. Eh, loolu expression kaay ma jàngal leen. nee naa leen ngeen jàngi. nee naa leen ngeen jàngi donc moom tamit. bu eh. fekkee ni mooy professeur ba pare def yëfu élève. Ah, wala loo xam ne du sax yëfu élève. bon il y a des explications quand par rapport a ça. ok léegi léegi cher. Ah. cher mm-hmm. léegi euh, lu mu tuddati euh, euh, catégorie yi ñuy jël gars yi di kii est-ce yow jàpp nga ni. Mm-hmm. war nañ mën a ki bu ñuy xëccoo meilleur artiste. Mm-hmm. wala meilleur lyriciste wala mm-hmm. whatever meilleur meilleur boo xam ne ni nit ak nit la quoi. Mm-hmm. est-ce que mën nañ jël koo xam ne ni dafa génne EP. bon ñun ñu xamee ko ci maxi wala mixtape. bon ak koo xam ne ni dafa génne par exemple album. ñeent ñi ko woy LP. E est-ce que loolu noonu yenn na maanaam. waaw man man man. parce que tey mënoo génne loo xam ne yëfu caaxaan la. Hmm. ak loo xam ne day certifié. waaw <laughs> yëfu caaxaan la. ah <laughs> et puis mixem. waaw du lu sérieux. waaw du lu sérieux sénégalais ñoo ñoo ko jël. catégorie jox ko dayoo boo xam ne àggu ko quoi waaw tey boo demee ci yenn affaire yi hmm. yenn affaire yi. reconnaître ñu sa EP boobu sa hmm. mixem. bal bu ñu qualifié d'artiste d'artiste foog nga génn album nga teg sur sur la table. mais est-ce que yoon la ñuy jël kii génne la ak ku génne li naan dañ leen di com com dañ leen di compétir loolu pour jox leen benn benn benn kii. Ah, waaw waaw waaw man man je pense que ni comme sànq li nga wax maam catégorie yi man gis naa ne am na depuis. Euh, année yi yëpp am na catégorie yoo xam ne jotul woon muy am. Mm-hmm. comme le meilleur xam nga artiste féminin. Mm-hmm. je pense que année yëpp euh, OMG moo ko jël quoi. Mm-hmm. OMG li mu fi li mu def si ci ci rab kenn kenn def ko fi quoi. franchement amul ku ku ñu koy comparé mais lan moo tax ñu koy boole muy compétir. te OM bi dañ ko waroon a génne façon mu ko mënti rek ay góor. waaw parce que projet yi muy génne. meilleur artiste kese. waaw meilleur parce que projet yi muy génne am na projet yu góor yoo xam ne mu leen dàq fop. mais lu tax tax defuñu ñu koy contour ak yenn yenn mooy ni quoi man depuis année yi dama jàpp nañ ko waroon di dindi quoi. léegi mm. bu ma ñëwaatee par rapport ak question bi euh, ba xam. danañ comp yoon la ñuy jël koo xam ne ni dafa génne EP mixé bi whatever. Mm-hmm. ñu ko bugg ko boole koo xam ne ni album la génne pour jox leen benn prix soit maire artiste wala meilleur lyriciste et cetera. waaw tey ren gis naa ko gis naa ren ñu boole. Euh, delloo buum bi. mooy compilation waa Black boo Concrete Business. Ah, waaw man xaw ma nag quoi lan mooy lan moo nekk seen kii quoi mais man mun ma gis nga def benn compilation boo xam ni. Mm-hmm. xam nga. plusieurs artistes ñoo fa nekk nga koy nga koy nga koy nga koy waaw nga koy boole ci nga koy nga koy prime ak ñoo xam ne par ay album solo la wala ay ay ay e la xaw si ah, catégorie bi lañ ko ci fête mi tax tamit aussi nga nan la nan laa mën a tuddee sax nga nga ñàkkal fayda artistes yi nga xam ne ñoo nekk ci biir sa parce que ñoo xam ne dañuy def duo sans yoo xam diyo la ay collaboration la nga ñuy compétir ak koo xam ne dafa def benn kii quoi. Euh, album boo xam ne ni dafa légitime laa def. waaw loolu loolu man du ma ko du ma ko giñ waay di rek. Hmm. waaw mais c'est-à-dire ñoom ñi nga xam ne par exemple ñoo dugal seen projet foofu noonu dama leen koy giñ quoi. léegi yow d'après vous euh, kii Black Concrete Business compil bi. Hmm. Ah. bu ban catégorie nañ waroon boole. amul catégorie amul <laughs> ñu def catégorie compilation. spécifique. c'est parce que ay compilation ñu génne chaque année. chaque génn quoi. man man catégorie loolu ma ci <laughs> d'accord ma ci quoi di jëlal kii waaye di jëlal boobu <laughs> beneen nga boole ci ñoom compilation seen yow loo wax ci loolu noonu wala yow am na loo ci kii non gis ren kii Ozi nominé wuñu prés kii animateur rajo yi en fait ren nomination boobu am mais rajo mu ngi dee de. wa c'est ça surtout ça. waaw waaw surtout ça. jamono jii nii ci gars yi nii. ñoo xam ne nii ñoom ñooy yëngal ñu ñu xam ñooy yëngal. taal la quoi taal la taal moo téye affaire yi mooy ci nii xam. rajo quoi les médias traditionnels yi ñoom ñoo ngi. wax dëgg fa yàlla kii bi animation maanaam rap ci euh, bande FM ni mu amoon doole amatu ko doole quoi boo xoolee sànq c'est très rare mhm. xam nga nga gis ay nag booy xool ci game bi yëpp booy xool ay benn taal nga fi wax mhm. wax si sa euh, euh, Marifal ak ah. ak Jili Der ak ah, Jili Der ak Zako peut-être ah. waaw xam nga rek audience bi audience bi waroon na am audience boobu émission war a am dëgg dëgg dëgg amatu ko quoi léegi loolu problème la quoi kon man pour man gisuma catégorie boobu tey man di am. ok ok yow d' accord nga ci loolu. le fait que d' accord parce que parce que rajo moom. qu'on hmm. le veuille parce que léegi les gens sont connectés. yi ñoom bu bu njëkk ba da xool même gars yi sax commencé woon nañ bu ñuy def rajo. Hmm. ñu ñu koy def en live. Hmm. léegi Facebook da koy bloqué. parce que tu droit ak affaire yooyu donc loolu moo tax rajo. boo koy def rajo rek nga koy gars yi déglu. mais gars yi tamit donc ça temps donc gars il faut ñu adapté wu créer yeneen contenu yoo xam ne nit ñi lu ñuy seetaan rab moom léegi du lu ñuy dégg rek lu ñuy seetaan la en même temps quoi donc il faut ñoom tam ñu adapté wu mais mhm. catégorie boobu tam d' accord naa si warul woon mën a warul warul warul a am quoi ok léegi léegi même kii numu traité façon bu ñuy euh, walla processus de récompense mhm. c'est-à-dire processus de de sélection bi présélection bi xam nga nomination et cetera gars yi def des votes et cetera ba keroog gars yi jox résultat final ba keroog gars yi ñuy primé woo gars yi ne leen et cetera lii lii lii boobu noonu am na ci bu ci important boo xam ne mooy vote yi vote léegi koo xam ne ni par exemple euh, amoo amoo kii lu mu tuddati comme saa wax na ko sànq album yoo xam ne ni jarul ñuy bokk quoi te te yow yaakaar nga ni nit ki bu mu ko dugalee ci awoor si am na benn leen loo xam da koy def balaa ñuy dem ca kii ba. ca mhm. jours yi. Mhm. mooy vote yi demee noonu. Mhm. mais ñu lay voté balaa kenn la kii ñu lay voté mooy ñoo xam ne am nañ la. déglu nañ sa projet. ak genre ñoo xam ñun la ñoo xam ne ñun dañuy déglu. lu ne si ñoo newu ci. et cetera est ce que loolu tamit euh, vote boobu noonu est lu kii la daal. lu crédible. waaw loo xam ne ni war nañ ko mën a maintain pour muy continuer di am waruñu kaa tëbal entre guillemets daal je sais pas. Mm, mm. tëbal ko wala. non vote yi moom foog mu am. mais xam nga ko si nekk sa soo dee fanatique hmm. yow doo xool lu sa artiste def yow yow pour yow man su ma su ma nekkee fan de quelqu'un hmm. soo téye mi Mike ne xaa sax man bëgg naa parce que je fan de toi donc loo mënti dugg man man dama lay soutenir ba mu jeex loolooy rôle fan su offert que importe yow sa projet baax wala bon ñoom dañuy dem voter ji parce que ñoom loolu mooy seen rôle mais mais mais aussi euh, vote yi jëluñu sax euh, ma ma jury yaa ëpp euh, ñoo gën a crédible que vote yi en fait. voilà seen seen seen seen pourcentage waaw seen pourcentage jury yaa ëppale vote parce que ñoom dañuy tenir compte ne ku ne mën na voter. waaw n'importe projet bi nu mu mënti mais ku nekk am yow mën nga voter ne. mooy meilleur mhm. artiste bi nu mu mënti mel yow mën nga ni mooy artiste de l'année nga dem vote mais là soo xoolee critères yi les jurys sont pour là pour xool critères yi ba xam remplir nga ko voilà vote vote bi ma du benn modèle de business et cetera. vote bi jaar par opérateur ci loo xam ne du gratuit. voilà voilà et loolu moo tax gars yi maintenir ko waaw loolu loolu mooy tax ñu koy maintenir sax parce que tamit xam nga euh, bon Galsen Info c'est des moyens tamit. Mm-hmm. Mm-hmm. soxla nañu xaalis bu ñuy defee yenn affaire donc vu que vote yi ñoom dañ siy gagné. waaw surtout ak sponsor sponsor yi. day doon lu ci bëri opérateur. yi la da ngay da ngay woote kii gagné kii gagné moo tax peut être dañuy soxla fonds yooyu pour dem ba jour J. ok pour pour pour soxla réalisation bi. mais tamit encore une fois vote yi tamit. gars yi tamit xam nañ ni business la. donc mhm. ñoom tamit bokk na ci lu ñu artistes yoo xam ne tam des bañ. Mhm. ok sama kaw quoi. Mhm. qu'est-ce que je gagne. su ma gañee lan su fekkee ni man sama gars yi voté nañ donc yaa a des fonds qui sont là. dëgg la bon depuis le début ñun dañ koy wax woy gars yi nañ comprendre c'est ça vient de démarrer mais à force tamit. artiste bi c'est son œuvre tamit. c'est son œuvre bien vrai que man d'accord naa boo génnee œuvre moomatoo ko. bu ñu ko ñun bëgg nañ suñu artistes si ñu leen di nommé ci ay nommé ci yu mel nii. Mhm. bon des fois man je suis d' accord sama œuvre bokkul. bon ça peut tamit mais ñoom fi ñu koy teg des fois day leer peut-être ah sa waaye day business. nga woo nit ki ah ni nga sa album day bokk mu ne la ah. léegi vote yi man ñaata laa ciy am. Mhm. wala su ma gagné trophée lan laa ciy am. Mhm. te gars yi paas bu leen indi sax. amuñu ko waaw même boo gañee yow des fois am na nu muy demee nii ngay téye donc gars yi ñoom tamit dañ naan ah lii waa lii day business. yàlla nag bu gaa yi ñoo gis ay affiche sponsor yu bëri dina yii kii sa ay diw mu ngi fi diw mu ngi fi mhm. kon man lan la ñuy gagné quoi mhm. donc yenn saa yi moo tax yenn gars yi dañuy dañuy daw dañ naan ñoom bokkuñu parce que waa ji day business seen kaw xam nga donc waaw mais mais fonds yooyu nag bon nga ñu yaakaar ni euh, duñ ñu koy utiliser pour taaral. événement ah, yi loolu loolu. finance charge yeeg ñoom seen équipe bu fay nekk hôtesse yeeg xam location salle bi. Hmm. donte sax na sponsor est-ce que tamit fonds yoon ak appel yi. jury bi transport bi invité yi et cetera. confection de carte et cetera détail yooyu sono bi jour est-ce que du fonds yooyu noonu. Hmm. du fa la jëm et cetera wala. waaw man man dama dama la jàpp nii yow mënoo def sa sa sa sa manifestation hmm. xam nga def ko. taaral bis bi la fa waroon am yépp nga def ko te ñi waral mbir mi yow joxoo leen loolu loo kii quoi c'est-à-dire mën nga ñëw def sa scène bu naas xam nga ay sono xam nga jury bi nga def si ñoom si li nga xam ne dañu ay feralal ñoom ñëpp mais artiste bi nga xam ne moo gagné mën na ko jox dara loolu tamit loolu dañ ko war a xoolaat bu baax a baax te moom tamit aussi ay ay ay ay fantam wala affaire doon vot vote boobu dama d'accord war na mën a nekk ba ñu ma ko de war na mën a nekk mais au moins ñu def ni ki nga xam ne mu ëppale vote mu am benn pourcentage boo xam ne daf ciy am sax même bu fekkee gagné ko même bu fekkee jury bi moo ëpp doole que vote yi mais ki nga xam ne mu ëppalee vote bi ñu xoolee après mu am lu mu ci am. waaw mais bu fekkee daf koy jël rek vote yooyu noonu yemale ko ci boppam nag loolu dafay nduru leneen. waaw man loolu laa gis quoi franchement. léegi léegi léegi événement bi gis nañ ci loo xam ne ni peut-être mooy moom la gars yi mu xaar. Euh, Néné Saay lu moo tax mu mu gën a neex gars yi moo gën a neex gars yi c'est diw doon lii. Ah, diw jënd na lii. Hmm. Hmm. saay fay la gars yëpp di xaar waaw lu waral loolu saay fay pour yow lan moo tax saay fay gars yi mu doon loo xam ne gars yi moom la ñu gën a xaar yeneen yeneen yeneen kii mu traité yeneen étape cérémonie bi. Eh, soo gisee affiche rek yow sa curiosité mooy lan la diw teg lan surtout affiche yi lan la teg en tant que en tant que artiste. donc en tant que mélomane yow yow yow curiosité boobu noonu yow yàqamti nga saay fa bi génn ba nga déglu hmm. ba nga déglu lu fa artiste ba teg pour certains découverte la des fois da ngay gis benn benn benn ñun mënuñu xam ñëpp mënuñu xam ñëpp franchement mais des fois da gis saay fa bi kenn ñëw benn booy ñëw nga découvrir ko si saay fa bi la tu dis le gars il est bon sans ñi ngi wax affaire compétition foofu tamit mën na mën na mën na nekk compétition que ku nekk wane sa talent. en fait mm-hmm. compétition waaw voilà diw diw a faj diw diw a faj diw loolu loolu loolu c'est bien beau ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu adapté wu si si si. ñu xaar ko daal voilà xaar ñu doon loo xam ne dañ koy xaar daal. léegi léegi léegi par ak gars yi ñuy boole ñuy cypher. Mm-hmm. yow par exemple soo doon choisir nga ne tey cypher tel bi mm-hmm. ñan ñu may jël ak ñu may jël ci lan laa koy teg ba choisir diw ak diw pour boole leen ci benn saay bon déjà standing. ok dinaa dinaa xool ci standing bi ku nekk par rapport ak niveau bu mu toll. Mhm. Mhm. même bu dul artistiquement mais par rapport ak xam nga daaw gis nañ mu def benn saay boo xam ne boole na grand yi quoi. Mhm. donc loolu c'était c'était nice. c'était c'était trop nice mu jël yenn gars yoo xam ne boole leen ñi nga xam ne ñoo bokk benn standing après dinañu xool de talent quoi. fi xam tey jii tamit am na yenn artistes yoo xam ne dëgg la mais foo pas que des fois muy niru complot quoi. Mhm. maanaam yow sama booy nga su ma la boolee grand bi vidéo bi dañ ko seetaan. Mhm. après yow ñu gis la ko quoi. Mhm. warul demee noonu. parce que liggéey bi dafa war a nekk mérite. affaire méritocratie la war a nekk. yow mérité nga bokk ak kii saay fa kaa ñu indi. warul visé daal warul yow voilà. mun nañ indi nag benn grand boo xam ne yàgg xam nañ ko ñu indi benn booy boo xam ne gis nañ ni ah kii il est ci saay fa loolu dafay naay sax des fois nga gis gaa yi teg ay saay fa boo xool saay fa da nga xam ne kii mooy grand léeg-léeg toog booy taxaw xam loolu dafa naay mhm. mais des fois munoo boole yenn affaire yoo xam ne nit ñi dañ koy xoolee ne kii maanaam boo booy mhm. suivre game da nga naan kii amul place fii mhm. amul place fii si talent amul place fii si standing ci liggéey bi lépp amu ci place quoi. Mhm. donc loolu tamit des fois foog foog mu ciy bàyyi xel par rapport ak ni muy bool parce que fii Sénégal bon comme man nitu studio la. Mhm. la plupart du temps xam naa gars yi ñuy joobee saay fay. Mhm. da ngay ñëw yow mii di dugal doo xam koy bokk. loolu mosuma ko comprendre nag lu tax ñu koy def. yow dañ lay jox bi ne la sa couplet nga ñëw dugal sa couplet nga ñëw dugal sa couplet léegi ñoom bu ñu amee couplet yëpp ñu ne ah diw diw diw ñu boole ñu monter son bi léegi après. ñu ne leen gars yi ñu vidéo ko léegi gars yi leen déglu après ngeen vidéo la plupart du temps saa yu bëri j'ai jamais compris pourquoi da ngay gis rapport mu ñu yónnee ko sax bi mhm. ne ko dugal sa couplet yónnee ko mhm. nga ne ko koo koy bokkal mu ne ko xaw ma quoi mhm. mais des tamit yow artiste yow xam nga loolu booy dem ñu ne la tey da ngay saay fa wala da ngay fri saay ak diw yow instant wu xam nga quoi parce que tamit day nourrir dara eh. fekkee da nekk ak biif ak waa ji nga xam ne tey da eh, bokk waaye dem nañu featuring rek quoi featuring ah, waaw parce que featuring da ngay xam ah, lu ci bëri da ngay xam ah, en amont. kan kan nga bokk ay featuring la quoi waaw parce que woowul ne directement ni ngeen ñëw rap. dañuy saay quoi ne la dafa joxe sa couplet diw joxe ñu boole. ay featuring la. waaw donc loolu loolu tamit il faut il faut ñu ciy bàyyi xel. ok waaw man li ma ciy wax mooy que ren tamit maa ngi gisaat tamit à travers saafa yi benn saafa lu ma métti la quoi nga jël benn Lil Diagne dëgg la quoi moo ngi ci ay affaire am. moo ngi moo ngi moo ngi góorgóorlu quoi dafay nga boole ko ak pour mel ni Kanga Squad. ok mooy lu saa wax loolu la quoi c'est-à-dire loolu loolu moo dul yoon. mais dañuy dañu war a boole ñoo xam ni. Eh, ñoo bokk ñoo bokk catégorie quoi mais loolu noonu c'est xam nga décalage dafa bëri. décalage dafa bëri quoi. mais aussi tamit d' accord ma sànq comme ma euh, sitaam la wax. Mm. nga ñëw di teg saay fa. Mm. di war a enregistrer saay fa wala affaire noonu quoi xamoo sa xew kan nga kan nga war a bokkal saay fa bi. boo ko teelee xam dina la may benn affaire dina andi leen affaire dina am benn engouement par boobu noonu quoi. soo dugalee pic tey mën na jur sang mën na jël beneen clash wala affaire noonu quoi. Mm. loolu lañu war a jéem a créer. Euh, bàyyi di xam nga gars yi ñoo dugal seen couple noonu te duñ xam kan ak kan lañ bokkal saa da ngay ñëw gis benn affaire quoi da lay woon ne kanga squad boobu noonu ñu ñu dugal ak ak ak Lil xamul xamul kan mooy Lil Diagne dañoo ñëw rek jékki-jékki ñu génn comme ça nii quoi man yooyu noonu la laay ñaawlu par ak saa fay maa nga deres ba lay doon kanga squad li mu fi def yëpp kur bu mag la xam nga buñ koy kii nañ ko boole ak ay moromam xam nañ ñan la kanga a a saay faal affaire yi noonu ok eh. parce que ki bu xamee ku muy saay fa dina xam ne mm-hmm. ndax mm-hmm. dinaa mm-hmm. participer wala eh. duma participer parce que ñaari la soit pa doo da ngay ragal ñu faj la da ngay gis ni yow da nga kooku noonu loolu loolu dañ koy comprendre quoi léegi léegi dañoo seetlu par exemple des fois ci biir ci biir spectacle yi naa fi la ñuy tëjee balaa ñu dem ci remise de trophée spectacle yi ci biir jour jour ji euh, ñun dañuy woote woo dañoo dañuy dund culture et cetera mais man pour man personnellement parce que euh, la dernière fois crew bu mel ni waa gër ñëw nañ su scène yëngal. waa gëb bu mu duggee ci scène. bu mu yéegee ci kaw scène gars dañoo waroon a jóg. ba kere ñu wàccaat scène. loolu may mhm. léegi yow loolu noonu noonu bañ jàngat nga ci yow. ñoom amuñu culture bi wala dañoo dañoo suivre a fait mais étant étant mélomane. benn ñaar ñu ñaar ñooñu quoi. waaw di nga xam ni kii cër bii la war a am. parce que kon suñu. jàppee lu ma wax. jour boobu noonu ñu ko sax mu ban. ñu bëri ñu fa nekkoon ñoom ñu sont pas hip hop quoi kon Galsen hip hop Awards dafa. mais c'est pas euh, kon dañuy delluwaat ci Galsen Music Awards wala Galsen whatever Awards. non loolu loolu parce que tamit le public dafa compte dafa war a compter. dafa war moom pour man quoi parce que bu dul dara show hip hop la. Mhm. show hip hop dafa am lu mu lu muy lu muy lu muy laaj. dafa laaj benn genre énergie boo xam ne day am par rapport a gars yi ak respect surtout ak elles xam di elles xam nga hip hop gars yi naa dañuy demande à ce di respecté ñoo xam ne ñoo fi neewoon bu dara neewu mm-hmm. ñoo xam ne ñoom ñoo tax mm-hmm. tey affaire bi gën a màgg moo gars yoo xam ñoo tax affaire bi di fay di mm-hmm. loolu loolu dafa war doon loo xam ne ni nit ñi dañ ko war a encaisser man loolu ça mal ma gis waa gëpp gars yi ay benn ñaar te waa ngëm ne serait-ce bu dul dara durée bu gàtt bu ñu fi def rek. ñeent mm-hmm. bi mm-hmm. mm-hmm. yëngal lañ fi. éman waaw deux mille trois ba tam yow loolu loo gisee yow tam yow loolu loolu noonu. waaw mais comme wax na ko ah ñàkk. culture bi waa ah. ñun dañoo am bon problème ci loolu bu dul loolu sax Sénégal nga gis benn booy buy buy buy rab rek premier verset bi muy dal di son bind ci lu ko neex wax lu ko neex te après doo gis benn grand toog intervenir ne ko hey nii quoi. parce que am na ñoo xam ne exemple Iba bi mu ñëwee la dernière fois. Ah, dafa ñëw fekk ma studio mu doon tourner benn émission. et ñu photo noonu quoi. Mhm. man su du man sax maa dugal photo bi. gars yi ah. ñoo dugal photo bi mhm. Facebook. Mhm. bon ay semaine après may dox parcelle. sama benn gars bon kooku xamante nañ. Ah. mais dafa ma gis ak yuuxu ma. moom nee na moom loolu moo tax mu gën ma respecté quoi. Eh, mu ne ma bro dama gis keroog photo bi ak Iba. dama xol sedd ma gën a kontaan ci yow. xam nga ma xam ne kii nii moom affaire yi fu mu ko toll. waaw fu mu ko toll ah. la waroon toll ñu bëri ko parce que loolu mooy tax sax. hip hop bi te après gis nga respect bu dee ci hip hop rek dara desatu fa quoi. Mm-hmm. ak reconnaissance boobu noonu. Eh, kon li nga wax dëgg la du yoon ñu nekk des fois ci ay concert bu présenté lu mel ni ay yenn gars yoo xam ne ils ont beaucoup pour le hip mm-hmm. mais tam c'est parce que gars yi amuñu xamuñu. xamuñu waaw xamuñu quoi gars yi. kon invité dañ leen war a xoolaat quoi parce que je me rappelle Festa 2H bu ñu defoon. Mm-hmm. old yi. Mm-hmm. Festa yi bu ñu commencé ba bu muy jeex. gars yi kenn doyalul. waaw man ko ñoom naa yëngu nag mm-hmm. jour boobu yëngu na <laughs> waaw ñeneen ak ñeneen ñeneen ñeneen voilà mm-hmm. Mm-hmm. lool lool lool lool moom day kii daal léegi fi nga waxee invité yi dañ leen war a xoolaat en fait moom mënul mënul segg ay invité moom mooy séddale non ah. séddale mënul mënul séddale mosuma dem gazette yi mooy séddale mais man mosuma fa dem hip hop lañ wax mosuñu jot ay hip hop lañ ah, même bu doon même bu doon bu fekkee sa am na ay sponsor waxuma maa gën a méritant mais léeg-léeg nga gis ñu am carte invitation ñoo xam ne man xam naa ni ñoom gënuñu hip hop est-ce que yow cherché nga pour am moo mooy li may ah, wax rek du ma war a du ma eh, cherché man man man pour ñëwaat pour ñëwaat si si si nga doon laaj sànq quoi le crew comme gëb la gëb la cest à benn crew la boo xam ne mën nañu même yokk saayet quoi man grand yi bu ma loon def primaire loolu odo seen saak ànd ak ay tubaab di def ay graphique dama loon gis non dafa loon daf dama loon kontaan quoi ah maam par respect bi par lu ma lay wax quoi moom lañ def te quoi qu'on puisse dire bokk nañ ci crew boo xam ni deuxième génération hip hop bi ñoom ak tigrim bi mm-hmm. am na lu bëree bëri bëri loo xam ne dañ ko fi def am na lu bëri yoo xam ne ñoo ko initié am na lu bëri loo xam ni yóbbu nañ hip hop bi feneen. Mm. kon léegi bu leen gisee si ay cérémonie yu mel nii ko gars yi war leen a màggal ko ñu xam ni gars yi. dañ leen a war a se quoi sur scène dañuy joxe franchement quoi man man man loolu laa gis quoi. dañuy joxe su sur scène. waaw loolu waroon na tax gars yi am kersa jóg. Mm-hmm. mais culture bi tamit il faut que il faut que mu am. il mu am ñëw ñu initier ñun nouvelle génération. Mm-hmm. parce que soo leen suñu waxul ñun duñu xam. Mhm. donc li ngeen doon dund ñun ñun ñii nii fekkeewuñu ko. Mhm. donc il faut il faut il faut ñu. inspiré ay ay ancienne génération la de. <laughs> léegi léegi léegi pour jeexal dañuy jeexal bon parce que dañoo topp ba dugg ci spectacle yi beeg ba léegi dañuy jeexal remise. Mhm. est-ce que vous trouvez normal remise awards hip hop ku dul hip hop du ko joxe. man tey sa man bëgg naa tey man su ma gañee ballon d'or. Mhm. ancien jour ancien ancienne gloire. Mhm. jox ma sama ballon d'or. Mhm. su ma gañee benn prix scientifique ancien scientifique ko xam ne def na ay kiwam ay preuve mu jox ma sama sama trophée. pare est-ce que hip hop bi waruloon demee noonu ci casse hip hop aussi. parce que des fois nga gis ay gars yoo xam ne ay DG la ñu woo. et cetera ñu ñëw joxe trophée est-ce que loolu bu trouvé ça. ah man toujours moom la ñu wax ah. ah. waaw waaw des business bi day primer trop quoi ci kaw ci kaw affaire yi quoi. Mhm. des fois te te loolu tamit bon yow li ngay wax ni sax yaa ngi ciy attiré sax. Mhm. xam nga bon man je préfère pas man tey suñu ma doon jox tey su ma su ma su ma su ma doon primé ci hip hop préfère man personnellement. koo xam ne kii. légende la ci voilà fii même même ba ci gaa yu bëri nii xamuñu gaa yi. Mm-hmm. ki ngay jox ki ngay jox prix sax yow kooku xamoo. xamoo ko dégluwoo ko mosoo kii. donc amul benn nekk ci yow quoi te ki koy recevoir tamit moom affaire war na doon mbégte ci moom. ci moom quoi mu taxaw naan ah man de diw moom a joxoon sama kii quoi. nekk souvenir yu loolu loolu moom loolu moom man. parfaitement d'accord. Ninis. damay rejoindre tam rek. pour parce que Galsen Popers la wax donc tout tourne ci hip hop Galsen en fait. dara waru cee génn. ba soo xoolee rek da ngay gis hip hop. là je suis parfaitement d' accord que ñii ñii ñii jël légende yi ñi ñi joxe prix les méritants. ok Chia. waaw pour man ki koy joxe am na solo trop. mais tamit li ñuy joxe tamit. war nañ cee wax. <laughs> waaw waaw surtout ça surtout ça. li ñuy joxe quoi man chaque jour loolu laay loolu laay wax quoi maanaam que nañ gën na gën a respecté artistes yi. artiste boo xam ne da nga ko nominé ci benn affaire mu dem def ay votam xam nga jury bi tànn ko par nga ko jox loo xam ne mën na cee def dara ëllëg quoi pour man quoi ndax wërsëg du ndaw lu ndaw moom moo fi nekk quoi qu'on moo nekk wërs bi gën a mag Sénégal mhm. mais bu fekkee jox la ko pour nga dem tamit aussi seen néeg noonu amul benn sens waaye yett bant boobu tamit am na xaalis tamit da solo wala loo xam tamit mais mais mën na bañ a doon leneen leneen leneen du genre dañuy toog di ndamoo ni année bi maa jël prime bi meilleur lii wala donc titre bi c'est important mais mais da nga naan nañ si rajouter lii lii ak lii mais bu loo yett su waxee yett bant teg donc da koy dénigré yett bant loolu weer loolu waxee mais bon xaalis bi dañuy ñëw xaalis bi day ñëw quoi waaw xoj na ñu neexoon trop waa neexoon trop gars yi pour euh, encore une fois euh, dañoo tase woon fii mhm. comme comme ñun dox daje dañuy dox daje rek waaw ku nekk joxe sa xalaat ci benn mbir Galsen Hip Hop House bon lu ñëpp rafetlu la franchement man nag man man dama ko bëgg seen biir xol c'est une chose boo tax ye moo tax des su ma gisee yenn yi di ci xew. Hmm. daf may daf may laal quoi. Hmm. may laal parce que damay bëgg mu gën a taay mu gën a naay surtout côté respect bi surtout. waaw parce que man damaa xaw a yàggu quoi. ci école boobu laa bokk. Hmm. donc yooyu noonu dama koy dund man la culture. mooy loolu dama koy dund quoi loo xam ne dama dama koy wax nii rek te am bëri naa ci ay morom. dëgg la te gars yi tam dañuy bëgg yooyu di feeñ ci ci euh, genre affaire yi mel noonu surtout gars yi di ba ren jii sax gars yi jég def nañ beneen jéego mooy. jéggi nañ frontière ñoom ci sous région bi loolu pour war na ni affaire baa ngi màggu quoi donc luy màgg ñëpp am ci wàll mm-hmm. dafa war a gën a nice quoi mm-hmm. loolu la rek moo tax ñu tamit suñu suñu xalaat su sew su su gàtt mm-hmm. su ñu joxe si suñu suñu suñu avis bu ñoo xam kenn et cetera mhm. c'est juste benn affaire bu am mhm. ñi ne ci di ci yëngu ñu am ci xalaat bu boo xam ne yaakaar nañ ne bu ñu jëlee xaalis seppi lu lu baax li mhm. boo do dolli ko ci lu jot a am na jur leen loo xam ne ñëpp a koy apprécier quoi waaw loolu mooy objectif bi waaw di leen gërëm di di di naan gars yi euh, di leen jox rendez-vous pour beneen numéro bi ñëw euh, à temps yi quoi incha allah